mooy xabliyal kasfa saa olomin wa saxyin wamhu anni maa kaana misla junooni xabog ñaareel gi mu ne xabliyal yowma yaa ilaahi rusuqan safili kalkali bi xayri ruyooni mu ne xab nanga may lii ñel ma al yowma bisub tay bii ma nekk yaa ilaahi yow sama borom rusuqan ma sax ci xam-xam te di ko jëfee safi yàlla na nga sellal wicc lii ñeel ma kalkali kalkali sama xol bi xëy di ci lurut benn tër-tër di ci nekk benn tilim-tilim di ci nekk ci xol bi yow suñu borom tey jii daal li ma bëgg mooy nga may ma ma sax ci xam-xam sax ci lu baax kooku moom la yàlla waxoon ne ñoom rek ñoo mën a firi alquran wa raasiquuna fil ilmi bi mu ne alquran ji kenn mënu koo taawil lurut yàlla da caa ak ñi nga xam ne dañoo sax ci xam te loolu bu xam mooy ñi nga xam ne dañoo am xam-xam ba noppi nag te di jëfee xam-xam ba moo tax mu ne nag ma may tey jii ma sax ci xam-xam dama bëgg nag sama xol nga fóot ko ba mu set wicc ba benn tër bu mu ci nekk tilim ruyoon jamoo la ci raana kala bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun waaye nag moom moo tax buñ na raana rek dañ ci jublu xol boo xam ne xattaahu kasiifu dafa fat maanaam ñu na kukk ba fatt dégg nga ba fatt nga xam ne amul benn leer benn ruso amatul ko fay na kamas amul benn yëg-yëg dee na wet léegi nag dee googu muy dee wet moo waral nag loolu moo koy not xol ba ba lu bon rek lay mën a def waaye du mën a def lu baax sun boromay nettali kala bal raana ala qulubi maa kaanu yaksibuun yàlla ne ne léeg-léeg nga gis nit muy def njaalo bala bàkkaar yu mag yi ba ci ndaw yépp fekk xool baa ko tooñ yàlla nee na xool xool baa ko tooñ ndax mënu caa génn xool bi ci boppam moo ko tooñ mënu caa génn léeg-léeg nga gis nit kuy def lu baax fekk xool baa ko dimbale ndax xool ba moo leer leer a ca nekk kon yàlla ne kalaa ca dëgg-dëgg bal raana moo mooy tër na tilim na nukk ala xulóobihim gis nga waxul sax fii xulóobihim ala xulóobihim seen kaw xol nga xam ne xol ya muur na maakaan wek si bon ngir la ñuy fàggu nga xam ne lañuy ñuy fàggu kon mënatuñ ciy génn ndax seen xol yaa mujj muuru ngir la ñuy fàggu loolu rek la ñuy mën a nekk mënuñoo dem ci leneen dégg nga kon moo tax mu ne na nga seetal sama xol benn tilim tilim tër tër bu mu ci nekk kon bëgg na xolam set wicc ba nga xam ne leer rek moo ciy nekk waaye ak lëndëm du ci nekk dégg nga loolu nag mooy tax nga mën a sax ci xam-xam sa xol bu setee mooy tax nga mën a sax ci xam-xam waaye bu sa xol seetu rek mën ngaa bañ a sax ci xam-xam kon xabli al yawma yaa ilaahi rusuuxan safi li kalkali bi xayri ruyooni moo tax xasida lu yéeme yéeme la sëriñ bi na ma la ko waxee rek niñ ko war a ñaanee rek la koy ñaanee niñ ko war a ñaanee dong saa bu ñaanee rek contraire ba la koy yàq day ñaan yàlla musal ko ca xam nga bi mu ne xab leel yow ma yaa ilaay rusooxan la ko ñaan bëgg na ko waaye dana ko nag rusooxan boobu du mën a am lu dul dama bëgg xol bi moom bu ci dara nekk ci ay tilim tilim ak tër ak tër tër ndax bu ci nekkee rusooxan bi du mën a am. kon yow bee koy jàng yaa ngi ñaan yàlla sax ci xam-xam yaa ngi ñaan yàlla balaa ngaa sax ci xam-xam sa xol njëkk set kon mu ngi noonu mu ne wax foo an wa anni yaxmil xuquqan lil baraaya wal tax taqdi du duyooni mu ne suñu borom wax fu na nga baxal xanii ci man baxal mooy koo xam ne lépp loo defete rek yàlla du la ko toppe da koy def lu ñuy wax jéllale bokkut ak jéggal nag jéggal moom mën nañ laa jéggal ñi far bàkkaar waaye am na jeexit yu ca nekk am na jeexit yu ca des dégg nga boo ko defaatee dañ koy binde ca sansa waaye baxal moom kooku mooy koo xam ne baxal nañ la loo def rek baxal nañ la kooku diggante sëriñ bi ak borom loolu moo ci am moo tax ma wax fu na nga baaxal ànd ci wax fii nanga nga gàddoo xànniye ci man xuquuqan lil baraaya xàq yi mbindeef yi am wal tax di te na nga xan xànni ci man duyooni seeni bor dégg nga mu ne yàlla ba ma baalee ba noppi damaa bëgg mboolem mbindeef bu mu mën a doon rek xàq bi nga am sa digganteeg sa morom moo xam nga yoral ko xàq dëkk ndoor wala nga yoral ko ay bor yëpp dama bëgg sama jëmm ji nga xam ne dara tax koo jóg lu dul yëkkati lislaam waxu daw yaram la kenn ku nekk ci mbindeef bi xàq bi nga am na ko tibbee ci man fayal ko ko yowmal xiyaam bu ko toppee xàqam allahu akbar na nga ko fayee ci man ki moo laay bire waxut sama njaboot de waxut samay soxna waxut sama doom waxut samay taalibe lil baraaya la wax moo Sëñ Tuubaa kenn ku ne boo ko yëgee am nga bañ koo yëg sax amel nga ko ak cant boo ko yëgee ak bañ ko yëg amal nga ko ak cant ak delloo njukkal mu ne xàq yi nga xam ne mbindeef yi dañ koo yore gall ko seen kaw gàlluwante ko seen kaw wala xàq bi nga xamee ne dafa dox diggante jàmm ak boromam mu ne yëpp nag ma ko yem. kon sëñ bi man ngeen bokk na ci li ko taxoon dem ci tukki ba mooy xàq yi nga xam ne moo dox ci diggante nit ki ak boromam xàq yi dox ci diggante nit ki ak moromam mu fexe ba yéene ko mu diis gann camam da koo sarse woon yóbbaale ko ca géej ga dégg nga dégg nga def lu ñuy wax tinu jaam ñi tinu jaam yi ci xaq yi dox seen diggante seen borom yàlla jéggal leen ko baal leen ko mu mel ni dem gi mu dem ci tukki ba kon moom dem gi ci boppam jëlee na ci loo xamee ne képp ku yor bor maanaam tukkeem bii sunu borom mën na mën na cee fayee bor boobee. moo tax wax fu na nga baal ani ci man wax mi ta nga gàddoo xani ci man xuquuqan xaq lil baraaye ñeel bi defi boolem xaq bi defi na ma ko na ma ko gàlla wal taqdi te na nga na fay xanii ci man du yooni seeni bor dégg nga mboolem bor bu ñu am ñoom bindee fi nga dama bëgg nga jëlee ko ci man fayal leen ko bu ci kenn amee bor kon gis nga ne loolu yëpp di doon yërmande dawal yërmande ju day ndeysaan nga xam ne kon xeeti ñaan yi ci moom rek nga koy fekk doo ko fekk ci keneen xeeti ñaan yi nga xam ne moom day tinu jàmm ñi waxuma la sax tinu jullit ñi waaye ba ci sax ñu doonu ay julit da leen di ñaanal yàlla mu xettali leen mu tiru leen dégg nga te loolu yëpp bëgg gim bëgg lépp lu baax rawatina bëgg gim bëgg lépp lu yàlla sàkk dégg nga moo tax muy xaasa léeg-léeg buy ñaan julit ñi waaye léeg-léeg buy ñaan itam maanaam labal ñëpp julitab chrétien beeg ñëpp mu di leen ñaanal kon wal taqdi xannii duyooni wal taqdi yàlla na nga faj xannii jëlee ci man duyooni bor boria bor ya yooyu yëpp damaa bëgg mu mel ne daal sama banque rek la ñuy ñëw su doon jamono ji nga ne ay nit ñoo xam ne dañoo yoreel banque xaalis bu bëri amuñ fi ñu ko fayee ay millions wala ay milliards sëñ Tuubaa na leen kaay leen maa ngi yor banque yoo xam ne ay milliards dong la kenn ku nekk boo ñëwee mu laaj la ñaata ñaata ñaata nga bëgg fay banque nga tudd somme mu yëkkati jox la mu yëkkati jox la xam nga jamono jëm la yëkkatee xaalis ba jox la ni ngay amee liberté ak féex te bëri na ñoo xam ne tey ñi ngi yoreel banque xaalis wallahi laasim duñ nelaw mukk duñ nelaw nelaw lu baax am na ñoo xam ne sax même sax bu délai ba jotagut bu fekkee masalan dañuy leb ci banque ne bu weer sangam wala atum sangam laa koy fay même sax donte at bu ñëwagut ñoom ñi ngi jaaxle fan la ñuy jëlee xaalis bu toll nii fan la ñuy jëlee xaalis bu toll xool li boo ko misaalee sëñ Muntaxa ñaata nit lay xettali ñoo xamee ne dégg nga seen loxo jotul seen gannaaw ñoo xamee ne dañoo nekk ci ay problème di ko dund te kenn du ko xam nag ñaata nit ñaata million nit lay dimbale tey moom sëñ Muntaxa loolu rek da koy déggee ci ñaan gi ba tey nga xam ne kon képp ku fi nekkal moom sëriñ bi rek daanaka man nga ne loolu rek daanaka la fiy nekkee dong xoolal sëñ Muntaxa rek fu ne tey réew mi lépp lu fi fitna bu fi tàkk rek dana fexe bam dal dana ci dugal xam-xamam ci xam te saa bu ko defee rek ñi gis ci résultat kon kon loolu ba tey day dugaat ci baytu sëriñ bi wax fa ani wa anni yaxmil xuquqan lil baraya wal taqli ani du yooni dégg nga kon xaside gi képp ko jàng bor moom doo ko yor bor boo am dégg nga booy jàng xaside gi suñ borom fayal la bor ya moo xam bor bi nga xam ne dafa dox sa digganteeg sa moromi jaam ñi wala mu dox sa digganteeg sa borom lépp sa borom dana la ko fayal baxal la bor ya ndax nit mu yor bor sax te du ko xam diggante boromam nit a ngi yor sax bor diggante nit ñi ta du ko mën a xam kon nag booy jàng xaside yi suñ borom dana la musal ci mboolem xeeti bor yooyu yëpp suñ borom musal la ci fayal la ko. moo tax yonent saasam bëri na ñaan yu muy joxe yoo xamee ne ñaan la ay ñaan la yu gàtt yoo xamee ne pour ku yore ay bor di ko jàng suñu borom fayal la bor ya kon sëriñ bi itam bu taalifee xasida wax ci loolu ku ne kon war na gëm ku ne war na koo gëm kon mu ngi noonu mu ne wal tajut lii bi an akuna qadiman lil kitaabil aziiz fi kulli hiin wal tajut yow yàlla dama lay ñaan yàlla na nga tabe lii ñeel ma bi an akuna ma nekk qadiman di sax dàkk di liggéeyal lil kitaabi ñeel téere bi a aziiz bari aji tedd fi kulli hiin ci bépp jamono nag laa ko koy ñaan ma di ko def yàlla benn laa lay ñaan dong fu ma toll daal liggéeyal alxuraan gis ko ba tey yaa ngi koy gis lii ba tey firi na ko tey defe naa ne sëñ Tuba méccam yépp moom si dundam rek alxuraan rek la doon liggéeyal gannaaw bu yonent bi jàllee. tubaa Tuba ñett am ñetti mission donte yépp mën nga ko tuddee benn mooy Abdullahi ak Xaadimu Rasulillahi ak Xaadimul Quraan dafa doon liggéeykatub alxuraan ndax dañu woon ci xasida bu busra lana wa huwa alkitaabu lasi man kaana qaadimoo sakkal la wal xelmu wal axmaal wa séemu ñu ne alquran mooy téere boo xam ne képp ko sax dàkk di ko liggéeyal suñu borom dana sellal xam-xamam ak jëfeexam ga ak jukkoom ya kon li sellal jukkoom ak jëfee gi mu doon jëfee xam-xamam ak li sellal léppam xam-xamam la ko ko may mooy liggéey gi mu doon liggéeyal alquran kon wane na moom xaadimul alquran la te na nag boo demee ci daara yi nga xam ne wala dëkk yi nga xam ne maanaam dafa séexal ay nit ñi sanc ko wala boo demee ci dëkki boppam yu sancal boppam yëpp da ngay gis ne ay xaadimul alquran nga fay gis ñiy jàngal alquran nga xam ne loolu rek mooy seen métier am dëkk yoo xam ne boo fa demee tey jàng alquran rek mbooloo moo xam ne tey jàng alquran rek ba ëdduna tukki bis bu ne jàng alquran mooy seen métier seen dund seen lépp ci barkeb Sëñ Tuubaa ci lay ci lay jógee. kon dafa xam ne alquran loo xam ne diggam ak yonent ko diggam ak yonent bi ñëpp mboolem kuy liggéey yonent saa diggam ak alquran ba tey gis nga li mu ci liggéey ken liggéey ko ci mu ne nag ma may ma doon xaddim boo xam ne day sax dakk di liggéeyal alquran nga xam ne kon ni mu doonee xaddim ci yonent bi di sax dakk di ko liggéeyal noonu la doonee xaddim ci alquran di sax dakk di ko liggéeyal dégg nga xam nga am na ñoo xam ne xaadimul alquran lañ sëñ Tuubaa nee na doon naa xaadimul alquran doon naa xaadimul xaddim bi ko kenn doonagut waaye neen loolu ngëneelu yàlla li ma defal la waaye fàgguma ko waaye xaddimu ko yàlla da ko doon jaay ma rek maam njëg gi moo tax moo ne kaw ne xaadimu ko wal kitab kooku fadlun la minal wahabi laa min iktisab doon gi ma doon xaadimul alquran doon gi ma doon xaadimu rasul kooku fadlun minal wahabi laa min iktisab ngëneet la lu lukkee ci yàlla mu defal ma ko waaye fàgguma ko waaye ala la si talaba kaw niyal xadim loo wa salaama sil bëreetil xadim kon talaba moom kooku mooy luñ ko sàkku la yonente bi dem ba ci yàlla sàkku mu doon xadimul quran doon xadimu taxa di yonente bi doon Abdullahi muy jaamukate yàlla kon mu ngi noonu kon wal tujulli bi an akuna xadiman lil kitaabil aziz fi kulli comme nag dafa ñaan yàlla mu may ko mu doon xadimul quran di liggéeykatu alquran ci yëpp ci yëpp waxtu jamono ju ne alquran rek mooy méccam nga sëñ ku ne xam na ne alquran la dafa mécc mu ne ko xat na nga may lii ñoom al yow ma tey jii sa diin ya ma jàpp sama diina minhu ci alquran xaa iman di taxaw guddi di naafale taaliyan di ko jàng bi xayri luxooni ci lu benn yàq-yàq mu ne comme nag dama laa ñaan nga may ma ma doon xadiimul quraan dama bëgg nag tey jii sama diine ma di ko jëlee ci alquraan sama diine yëpp ma di ko jëlee ci alquraan te bañ koo jëlee ci leneen lu dul alquraan su ko defee nag guddi yeeg bëccëg yëpp ci may taxaw di naafale di jàng alquraan te nag duma ci yàq dara kooku mooy al luxooni. wala bu ñu ne luxooni fil qiraati luxooni jamxo la ci laxnu bu ñu ne laxnu fil qiraati awil kalaami mooy aqtawu fil ixraabi wa qaalafa wàcc assawaab diw kat jàng na alquran wala wax na benn wax nii rek jàngim jàng alquran wala mu wax rek indi ci ak njuumte wala muy lixraab alquran juum maanaam wuuteeg ca anam bu jub ba nga xam ne dafa wuuteeg nam ko doon lixraabee kooku mooy fil ixraabi wa fa wàcc assawaab nga xam ne anam anam bi mu ko doon lixraabee da caa juum kooku la ñuy wax laxnu ba xool sa baat bi rot na ci alquran wala taxrifanahum fi laxnil qawli wala ya'lamu axmaalakum wala nabluwanakum xataa naxlamal mujahidina minkum wa saabirina sadaqa llaahu l-asiim kon lu woon mooy koo xam ne buy jàng alquran taxaw di ko naafale di xool kaamil bi waaye du ca yàq dara du yàq maska du yàq baat ya du yàq sadd ya maam daal lépp ma xarjuroo fi lépp loo xam ne rek yàlla noonu la bëggee ko jàngee ci war a tarnaawu tartiilan noonu la ko suñu borom subxanahu wa ta'ala mayee bu ñu naafale alquran du ci yàq dara te am na ñoo xam ne bu ñuy naafale dañuy yàq léeg-léeg léeg-léeg ñu yàq ta doo ko mën a xam waaye fekk yàq na dégg nga kenn ku nekk ak ñi nga jàngee alquran ak ci riwaaya bi nga ko jàngee am na koo xam ne tey dana yàq waaye li tax yow xamoo yàq gi da ngaa jàngu riwaaya bële. kon sëñ bi gis nga de téere bi yëpp da nga ciy digg alquran gis nga itam bi ñu rombee lu mel ni min sihaabin tabbataloo li wakilin xam ne ci yonent bi lañ jàngee baata tabatul muy dogg gi ñuy dogo ci bëccëg yi di jaamu yàlla guddi yi itam ñu di ko naafale wata wata batali ilahi tabtilan kooku num kooku mooy kan mu ne rabbul masriqi wal maghribi laa ilaha illa wa fattaqisu gis nga baata wakilan fii sëñ Tuubaa ne min sihaabin tabataloo li wakilin ba tey kon aaya jooju lay delloo si waat kon gis nga ne xasida gi da nga ciy gis alquran bu baax mu ne nag ma tey ji sama diine ma jëlee ko ci alquran taxaw di ko jàng ci guddi ak gi a benn yàq-yàq bu mu ci am loolu yàlla defal na ko. ifsik iksifi na nga muri ñeel ma asraaruhu mbóotam ma waxab na nga may lii ñeel ma huddaahu njubam ga wa hudda sunnatil amini ak njubug sunna si kañu wóolu ko almakini ka kuñ dara jaal. mu ne mbóot mi nekk ci alxuraan dama bëgg secret bi ñëpp di làmb te mënuñ koo xam ma ko ma ko di ko gis waaye njub gi nekk ku nekk di ko làmb te mënoo koo am may ma ko ma am ko xam nga alxuraan njub rek la njub rek lay jàngale hudan lil muttaqina fu ne saa saar lu ñuy bëri bëri leen rek la bëgg nit ñi jaar fa njub képp alxuraan lu muy bëri bëri njub rek lay jàngale kon hudan la lil muttaqina sëñ Tuubaa nee na secret bi ci nekk laa bëgg nga muril ma ko njub gi ci nekk nga may ma ko mu jub kocc dégg nga waaye itam damaa bëgg njubug yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam mooy mooy al mooy ku ñu wóolu ku yàlla wóolu ku yéeféeri màkk yi sax wóolu woon waxuma laa nag julit bi waaye nag mooy ku yàlla dara jaal ñu baax ñu tedd ñëpp dara jaal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wormaal ko wekk ko njubam gi mooy lan mooy wa anna haza sirati mustaqiman fatabihu wala tatabihu subula fatafaraqa bikum han sabilihi kon ngën ci njub mooy njubug yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ngën ci sariya mooy sariyatul ibrahimiyya dégg nga mooy yonent Ibrahima ani itabiya millata Ibrahima anifan wa ma kaana minal mushrikiin ndax moom lañ ko xënc waaye ngën ci njub moom mooy njubug yonent bi moo tax kere bi mu juddoo rek ci lañ xam ne njub judd na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam njub moo judd sël yàlla nga julli ndax ban faw ali ci yonent bi rab yow sama borom wasali bi te nga sëlmal ca moom wal tudd yàlla na nga saxlal dàkk li ñel ma bii ci alquran sukkooni samak dal ileeka jëm ci yow yow suñu borom yàlla na nga julli faw ci yonent bi te sëlmal faw ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam damaa bëgg ci ci damaa bëgg ba tey dama bëgg nang ma saxlal dàkk ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama dal gi may dal jëm ci yow xam nga tey ki nekk ci néegam taal ab climatiseur ab climatiseur ba noppi nag di dallu ku ne xam na ne ni ngay nekkee ci mbégte ak kontaan ndax da ngaa nekk ci barab bu sedd bokkut ak ki nekk ci marché ba di daan doolem nekk di ñàkk ko nangam déedéet di fomp ko nangam nga nekk ci bara boo xam ne tàngoor rek fa nekk déedéet. sëñ Tuba noonu la meloon alquran moo doon climatiseur am bu ko tijjee di jàng wala mu dend ak moom rek dana yëg loo xamee ne dootul yëgati lu dul loolu moo mu ne. wala tuddum yàlla na nga saxlal dàkk lii ñeel ma dégg nga bii gi mën nga ko delloo ci alquran bii ci alquran sukuuni sama dal ileeki jëm ci yow. nga xam ne dal gi may am dal dëgg-dëgg ba yëg na daal tey am naa sakina sakinatul xal bi kooku ci alquran rek ci laa fu mën a nekk nag sukkoon googu li ko may mooy alquran. wal tudim te yàlla na nga saxlal dàkk lii ñeel ma tilaawatan ma di ko jàng wa qiyaamatan ak di taxawee guddi di ko naafalee ak dégg nga wa qiyaaman ak di ko naafalee fii layaali ci biir guddi yëpp war fax te yàlla na nga yëkkati dawaa man faw su oon yi samay mbir yow suñu borom lu ñuy wax tilaawa ak xiyaama yëpp ma di ko def ci nahaar yi ak layaali yi maanaam sax ci nag moom dafa jafe moo tax mu ñaan yàlla saxal ko ci nga xam ne saxal gi da koy jàng ci waxtu wu ne naafale gi tam da koy naafale ci waxtu wu ne moo tax nga dégg ñu ne sëñ Tuubaa fépp fu mu fépp fu mu sa teg su jaadaam rek da gis ne dana fa julli ñaar rakk moom julli moom fu mu mën a dem rek dégg nga ku ëppale luñ julli ci kaw suuf boo ko doon laaj mooy sëñ Tuubaa julli rek ki ëppale lu ñi ko def ci kaw suuf kooku mooy sëñ Tuubaa julli moom defe naa ne buñ ci doon concours sëñ Tuubaa moo jël ndam li moo tax ma ne sëñ Tuubaa côté boo demee rek nga natt ci nit yàlla ba naw ko ca boo ci nattee sëñ Tuubaa kookee da koy gàccal mbiri sëñ bi day gàccal kookee bëgg yonent bi bëgg alxuraan ak lépp lépp loo mën a jël rek li lay xamal ne awul morom da ngay xam ne sëñ Tuubaa bokkut rek cee kookee nga koy tuumaal dégg ma saxal ma sax takk di jàng alquran di ko naafale ci biir guddi waaye sama mbir yëpp na nga ko yëkkati mooy na nga kawel sama mbir na nga nangu sama mbir yëpp na nga kawel sama yitte yëpp kooku may war fax dawaa man su óoni mu nag na ko def bi imaam yi ci dara jaay ki nga xam ne mooy sama imaam bi mooy njiit li wa malja it doon sama wéeduwaay mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ra'iis yi te doon sama njiit sallallahu alayhi wasallam wa tawala maa ngi leen na nga méngee mu óoni sama dund dara jaam daan faw yàlla dama bëgg saxal gi ngay saxal jàng gi may jàng alquran heure bu ne ak naafale gi koy naafale ci guddi yi ko defee ci barke bi yonent bi nga xam ne mooy sama imam mooy koo xam ne sama bët moom rek ci laa ko teg moom laa topp ndax comme yoonu yonent bi sallallahu alayhi la topp te li fi indi mooy yeesal ko kon fu yonent bi nekkoon foofu lay teg ay bëtam mu ne ci daraja yonent bi nga xam mooy sama imam yonent bopp mooy sama wéeduwaay ma ci tax daal mënuma daanu mooy yonent bi ndax moom lay xool su fekkee yonent bi rek ngay xool ba noppi wéeru ci moom kooku doo daanu waaye mooy sama njiit dégg nga moom rek laa jël def ko muy sama imaam mu doon sama njiit. maa ngi lay ñaan li ñuy wax mu oon mu oon mooy dund mooy ñam woo xam ne masalan tukkikat yi dañ koy def masalan kii tukki jël lu duuf ci xeeti ñam yóbbaale ko bu fa war a am ñetti fan dana xam ne dund gii mën na koo dund ci yoon yi dana xam ne yóbbul bii daal mën na koo yóbbu tukki ba ñëwaat te xëy na du jeex wala lëm ci bëgg yëpp dana ko man lu mel ni masalan kii dem màkk day aajo nga yóbbaale dund nga yóbbaale xaalis ndax da bokk sartay dem màkk sax bu la wóoree ne amoo xaalis wàcc na la bu la wóoree amoo sax yóbbal bu doy bu la wóoree tey sax sa na sax mënoo leen di bàyyee lu doy ndax danga ko amut wàcc màkk moom da lay wàcc kon bala ngaa dem màkk day fekk sa soxna yi ñu fi bay ak sa njaboot gi nga wëccal leen ab dund ndax yow la war a ba noppi nag yow it nga am loo yóbbuloo dem ba ñëw te doo ko yëg waaye loolu yëpp lu ci nar a fekk lislaam teggil la ko ndax diine yusru la moo tax kon kooku mooy mu oni mooy kuy tukku ba noppi li ñuy wax dund da koy bëgg waxtu ne day bëgg di dund kon nag moom dafa bëgg a jàngale leen dundam ci biir tukki bi muy xóotam muy taxaamam li muy yëg yëpp mooy alquran moo tax mu ne nag watawlaa na nga méngee sarmadan faw dégg nga dégg nga bixii ci bixii ci barke bi yonente boobu sallallahu alayhi wasallam mu óoni li nga xam ne moo di sama dund maanaam daal lépp lu may dundee ci biir géej gi ci biir tukki bi nang ma ko joxe ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajmaina mu commencé nag di ñaan na ko wal tahab li wal tahab li ixtifaahu bi ixtiqaadi wa maqaalin kal fixli waxta qutuuni mu yow suñu ba wal tahab yàlla na nga may lii ñeel ma ixtifaahu may xenc yonente yàlla Muhammad bi ixtiqaadi ci xencu pas ndax xencu bi gën a am doole mooy xencu pas-pas yonente bi ni mu takkoon ni amoon pas-pas ci diggante bi ak borom nga koy xencoo noone di ko xenc ci sa xol wa maqaalin ak ci ay wax yonent bi nam daan waxe nga di ko waxee kal fiixli ni ki ay jëfam nam daan jëfee nga di ko jëfee loolu mooy sunna waxtu xutooni ci waxtu ma nekk ci samay dëkk mu ne yàlla dama bëgg lu ñuy wax ixtifaau muy nit ki gisoo ko waaye nii la daan waxe nii moo daan pas nii la daan jëfe yow gisoo ko ci gannaawam nga ñëw waaye nga man di ko xencu kooku mooy xencu dégg nga nga xam waxtu wu da nga koy xencu kooku mooy al ixtifa dégg nga yàlla na ko yàlla defal waaw bu dee roy roy nag moom sañ nga koo def ki nga jàkkaarloo wala ki nga bokk benn kër waaye ki nga gisul nag ndax da nga ko doon dégg rek man ngay xencu ay mbiram waaw sëñ Tuubaa nan la daan waxee sëñ Tuubaa nan la daan jëfee sëñ Tuubaa lan moo doon pas-pasam taalibe bu ne nag ci loolu nga war a xencee borom Tuubaa ndax moom loolu ci lay xencoo bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nag ma may ma di ko xenc ci pas-pas ci ay wax di ko xencu ci ay jëf ci waxtu samay dëkk fu ma mën a nekk rek ci samay dëkk nay xencu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lii mu ne nag wasan sa yàlla na nga dàqee bii ci barke bi yonent boobu al ahadiya samay noon xan nii ñi daw sëri ma wal tasun yàlla na nga ñoŋale lii ñeel ma dawaa man faw butooni sama sama biir xaan fu mu wëlis lañ yor kon ba tey gis nga tegtal nga ne kon dëkk biiram amul lu ca mos dugg ci tukki ba bàyyi ko ca noon ya loo xam ne moo ko doon sàkku ci ñoom ngir ne daa xiif xam nga booy mooy mooy rek wa sar sarmadan tawal la mu óoni kon ci barke bi yonent bi la ko yàlla defalee maanaam dégg nga lépp loo xam ne xëytu dund la yàlla ko koy jox ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye du bàyyi ko ci benn tubaab benn nasaraan déedéet kon fii dana ko firndeel mu ne maa ngi lay ñaan nang ma dumaal samay noon yëpp dàqal ma leen ñu sori ma ci barke bi yonent bi waaye nag ma na nga protéger sama biir biir bu ñu protéger mooy biir boo xam ne lu lënt du ci dugg biir boo xam ne lu xaraam du ci dugg lu moomu du ci dugg luñ ko may du ci dugg lu ko yàlla sidd rek moo ciy dugg te mu doon loo xam ne lu dagal la biir boobu kooku mooy biir boo xam ne suñu borom protéger na ko mooy biir boo xam ne suñu borom ñogal na ko moo tamit wa sens yi na nga dàqee bii ci barke bi yonent bi ahadee samay noon xan ni ñi sëri ma wala tusun te yàlla na nga ñoŋalal lii ñeel ma dawaa man faw buttoon yi samay biir xan fa mu wólis leen mooy lañ yor soxla ma ci dara yàgg nañ ko proposé lu ne ci xëyti lekk yu neex ci géej ga waaye lépp loolu bokk na ci li ko waral sax moo tax mu jaayantoo na lekk yu neex yi ngay dikki yëpp ndax tubaab yooyu rek la ñuy dundee waaw xëyti furwe yeeg xëyti lekk yu neex yi lekk yi nga xam ne sax xëy na nit ñi ñuul ñi sax des nañ leen di xam wala xamuñu leen ba di ko lekk ñoom loolu rek mooy seen lekk te loolu ku nekk seen biir da ko soxla da nga da nga ko yittewoo jëm ci ñoom te boo ko lekkee tooñ nga sa borom moo tax Sëñ Tuubaa far nag jaayanteeg suñu borom ne duma lekk seen lekk yi mun ko yaa mu qiisan yu'inu kulla faqiiri fukka kabla la si xadaa ka yaa muqiisan woo naa yow yàlla muy aji xettal ji yoxee nu koog dana dimbale kulla faqirin gépp aji xaajowoo jëm ci moom ngir mu xettali ko yàlla na ko loo may defee mu ne ko fukka dindil fukka xobbil kabla la si jéng gi nga xamee ne xadaa mujj na ci man ka rax yi ni mel ni dañ koo tayle ci man ndax mëntu tàggoog man loolay tayle mu ne woo naa la yàlla mi nga xam ne képp ku xaajoo jëm ci yow ngir dafa sàkk ku ko xettali yaa koy dimbale xettali ko képp ku tënku yaa koy tinki képp ku jaaxle yaa koy dindil ci jaaxlem yooyu képp ko yor ay njàqare aki i problème yaa ko mën a dimbale xetali ko ca mu ne ko nag man genn jéng moo ma dal nga xam ne dafa mujj dañ maa tayle sax masalan mooy ki nga xam dañ koo jéng ba noppi nag masalan ñi àppal ko diiru dundam xam nga kooku jéng gi dañ ko koo tayle ndax duñ ko dindi mukk mu ne nag jéng gi nga xamee ne moo ma tëj dafa mel ni damaa mujj doon koo xamee ne jéng gi dañ ko tayle ci wan mooy du dindee dootu dindee ko faw bay laayul baax damaa bëgg nag yow mi nga xam ne képp ku xaajoo jëm ci ngir saako xettal yaa koy xettali dama bëgg jéng gi nekk ci man ko dindi ba tey jéng góor mooy ñoom jéng googu ñuy wax ñoom waa tasawuf mooy seen diggante ak seen borom seen borom tinkil leen ñu not seen bakkan not saytaane not not adduna not seen bànneex dégg nga dégg ba nag mboolem xaqabaat yi xeeti ciiraay yëpp suñu borom dindi leen ko daggal leen ko dégg nga moo tax mu ne ko fukka na nga xob bi kabla la si jéng gi nga xamee ne xaddaa mujj na ci man ka rax yi ni mel ni dañ koo tayli ci man ndax dafa bañ a dafa bañ a dideeku mu ne rabbi bil mustafa al muqafa habibi wa tabibi min al al muhini mu ne rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan bil mustafa di ko ci kañu tànn ka al muqafa kada kañ xencloo yoonu yonente ya ko fa jiitu woon habibi kadi sama soppe wa tabibi ta doon sama daptor min al udali ci way tëya al muhini tey aji doxadal jam dal mu dee suñu borom maa ngi lay ñaan di ko dar di ko jaaree di tawsul ci barke bi yonent bi nga xam bokk na ci turam ya mooy al Mustafa mooy ku yàlla tànn bokk na ci turam yi mooy al Muqaffa mooy ku yàlla xenculoo yoonu yonent yu ko fa jiitoon kooku nag sama soppe la man sëñ Tuubaa kooku nag mooy sama soppe waaye ni mu doonee sama soppe noonu la doone sama daptoor ci mboolem feebar yu tëx a faj yi mboolem jàngoro yi nga xam ne dañoo tëx faj rek yonent bi mooy sama daptoor sallallahu moo tax bu ñu nee al xoddaalu mooy sadidul muxjisu bu ñu ne yuqaalu daa un xoddaalu mooy laa tibbalahu jàngoro ji xoddaal la mooy benn médecin mënu ko faj yóbbu nañ ko ci médecin bu ne waaye mënu koo faj xoddaalu mooy tekki yaxjisul atibaaw xan sifaa'ihi maanaam fajkat yëpp docteur yëpp médecin yëpp tële nañ ci saafara ko kenn amul lu ko saafara. kanaa kay dañ naan kon dëgg dëgg nag. feebar boobu kenn mënu ko faj kon waaye nag yonent bi saasam bala nga xam ne moo dàq faj ñëpp leneen gis koo xam ne la la teneel feebar la ci barke bi yonent bi ci la beekoo yóbbu nañ ko. leneen gis koo xam ne la la teneel feebar la ci barke bi yonent bi ci la yóbbu nañ ko pourtant ci médecin bu ne mu faj ko waaye mën ko faj jël ci rek takkat yonent bu Busayri feer boo xam ne kenn mënu ko faj mu def tawsul rek ci barke bi yonent bi ci la taalif burdoom bii ba yonent bi jël loxom bu tedd bi teg ko ko nga xam ne feer boo xam ne dafa demoon ba wetam yi doxatuñ dafa paralysé sun borom wéeral tawat ba ci barkeb yonent bi kon yonent bi su ma alee man xëy su ko sëñ Tuubaa waxoon massa saa maral yëpp rax bi laa but inoo faasa bil xaral moom rek moo mën a musale ci tawat yi yàlla buy musal jaamam waayam dëgg ci xeeti tawat yu bon yi da koy musale ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bu ñu ne alon daal mooy intaqale ila rahmatillahi baxda maradin on daalin la lam yen fax maawoo dawaa un daa un laa dawaa allahu xabiisun buñ ne diw ko toxlu na jëm ci yërmande yàlla mooy faatu na gannaaw ba mu tawatee tawat joo xamee ne médecin yi kenn mënu ko faj ndax dafa të ndax jàngoro la joo xamee ne jàngoro ju bon la kenn mënu koo saafara benn médicament mënu koo safara kon Sëñ Tuubaa nee na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy soppeem di daptooram ci feebar yu tëy xam nga almuhini almuhini ki dem safara almuhin la tudd ndax mbugal mi nekk na ci kawam ba dox dal ko ki feebar ku ko xool gis na nit bala ngaa xam ne du dara rek mooy mu feebar ta bi ci lalab lalab hôpital ba nekk ci waaji sukuraat wala mu nekk ci néegam ba feebar feebar yu yi sax da ngay xam ne ndeke nit ko nit dëgg dëgg nit du dara kooku wax nag mën naa mer waaye nit du dara bala nga xam ne nit du dara rek mu feebar nit loo ko naw naw kere bam feebaree rek ci ngay ci saxal dana dem ne yow kii du dara nit du dara waaw kooku wax nag mu ne maanaam mu mer waaye loolu lu yàlla def la maanaam nit ci bopp moo doonu dara loolu na bala nga ko xam rek nit ki toll ci feebar ndax nit balay dox di rek dëgg-dëgg lu muy sawar sawar yàlla natt ko teg ko ab feebar. moo tax sëriñ bi ne rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan bil Mustafa di ko jaaree ci kañu tànn ka al Muqafa kañu xencloo yoonu yonent yi fa jiitoon habibi kadi sama soppe wa tabibi te doon sama daptoor mi ne la xoddaale ci way tëya almuhin yee aji doxo dale mboolem feebar yi nga xam ne yóbbu nañ ko ci ku ne ku ne kii na ko faj nee man feebar yu tëj yooyu yëpp du dem ci kenn di ko jox mu di ma ko fajal ndax mënuñ ci dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sama docteur moo koy faj. yow suñu borom nag dama bëgg ñaan gii ma ñaan yëpp nga xam ne wax na ko wal tahab lii ixtifaahu bi i'tiqaadi yooyu yëpp xeeti ñaan la wal tudum lii bihi ilayka sukuni wal tudum lii tilawatan fii layaali dégg nga dégg nga dégg nga yaa muqisan yuhinu kulla faqir fukk kabla la ci xadaaka rahini yooyu yëpp ñaan na ko léegi nag rabbi bil mustafaal muqafa habibi wa tabibi min xodaalil muhini mu def taw tawsul ci barkeb yonent bi mu nekk ko nag yàlla istajib istajib accordel istajib wuyul istajib nangulal sama ñaan lii ñeel ma wëltu sufi te yàlla na nga setal wicc yàlla na nga sellal wicc xal bi sama xol wa nawir te yàlla na nga leeral xol ba waasihan mbir mu muy aji yaatu moom xol ba waaxiyan di aji mokkal waaxiyan di aji wëttu jami al mutoni mboolem li nga xam ne luñ yaxal la te mu doon loo xamee ne njëriñ da caa nekk. mu dee suñu borom dama bëgg ñaan yi ma ñaan nga nangu ko ci alquran ak ci bi lépp nangul ma ko dama dëgg xol bi moom na set wicc wicc wicc waaye leer rek na ci nekk waaye na nga ko xubbi ba xol bi yaatu yaatu goo xam ne lépp lu luñ yaxal ci téere rek xol bi moom xam na ko. sëñ Tuubaa boo ko joxaan téere rek téere téere xam na lekk ci biir xam na ñaata tomb ci nekk xam na baat ya xam na masque ya te tijjiwul ko de ni meroon ci alxuraan noonu la ko yàlla mayoon téere yëpp ah damaa xam ne xasida yi xol bi mu génnee rek ko waroon nga xam ne xasida goo ko jox xam ne ko ko bind xam na lu nekk ci biir te du ko tijji loolu yàlla da ko mayam te itam lu tax yàlla may ko ko mooy dafa wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bokk ci al mujjadi doone yi mooy ñi fi nga xam ne jaar nañ fi gannaaw yonent bi di yeesal diina te day aajo mu peeg sariya peeg xaqiqa peeg lépp li fi yonent bi bàyyi du ci yokk dara mais du ci wàññi dara foofu rek lay teg ab tànkam doon xaafisul Qur'an maanaam wuttu fànne xam-xam yëpp téere yëpp mu xam leen ya ca wér nag boo déggee mu ne yàlla may na ma alquran may ma xaddis yu wér ya dégg nga moo gis ci mbindam xaddis yu wér dajale na ko ci mbindam waaw booy xool na xasir yu yoo xam ne dafa jëm rek ci loolu nga xam ne xaddis yonent bi rek waaye du pare bu pare nag da koy tuddee aw tur waaye du waxam wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la moo tax kon lépp lu ñu yaxal rek al mutoon mooy lépp lu ñu ci téere te mu am njëriñ téere ba doon téere bu am njëriñ ci fànn gu mën a doon rek ci lañ ko taalif kooku sëñ Tuubaa mokkaloon na ko waaw <laughs> moo tax loo ko mos a laaj rek sëñ Tuubaa daawutaan dool delloo laaj loo ko mos a laaj sëñ muy noonu moo kon mu ne leeral xol bi te yaatal ko mu wuttu ci mboolem xeeti téere yi kon nit ki balaa wuttu téere yi day fexe defar xolam xolam set wicc day fexe leeral xolam xolam set wicc loolu nag waxoon naa la ba tey kii jàng xasida yi dana ko dimbale ci wàllu xam-xam ci wàllu lu mel ni ngay jàng yenn téere yi yiñ baaxoo di jàng moo xam fiq ak tasawuf nga ban leen di mokkal mooy nga fexe ba sa xol set te nag xasida day raxas xol da xoo bi tawaalif yi àndal xulóobu man yàlla tamit sool xalma fii kulli saman suñ ci wax na ko ci mafaatul bisri samay tawaalif yëpp ñi koy jàng seen xol yi na nga leen leeralee ba xam yi ñuy ci yëpp jamono ñu mën di am. mu teg ci wal tajud lii bi asmatin fii dawaami saa na jaatin min asaa wal futuuni mu yow sunu borom wal tajud na nga tabi lii ñeel ma bi asmatin ci ak mucc bi asmatin ci ak mucc fii mi faw ci luy sax faw dégg nga wal tajud na nga tabi lii be ma bi asmatin xesma fii dawaamin faw fii dawaamin ci luy sax ba faw saa na jaatin mbir moom may borom mucc minal asaa ci lépp luy lor wal futooni ak fitna yi dama bëgg nga may ma xesma ma ki koy am moo di ab yonentu mooy ñoom seen dara du yàqu yàlla ñogal na leen protéger na leen waajal na leen xam na luñ attan xam na lam leen sëf duñ yàqale ko kooku la yàlla da jox ab yonentu dégg nga muy noonu bu dee wëlu nag mën naa am lu ñuy wax xasmu waaye ab yonent la ñuy jox ma mu ne yàlla may ma xesma nga nga joxoon sama dara dutul yàqu ndax boo amee xesma ma ngay mucc ci lépp luy lor ak fitna fitna lu muy bëri bëri yàlla dana la ci musal lor yi lu ñuy bëri bëri yàlla musal la ci nga mucc ca moo tax nag ma may ma barab boo xam ne boo ci duggee maanaam mucc ci lor yëpp mucc ci xeeti fitna yëpp mu ne loolu nag damaa bëgg ma gi na ma ko may ba faw ba keroog ñuy tàbbi aljana bu dok dog mu ko rab xadaa a xaaji faj sama xaajo wa basiri yàlla na nga bégalee bii ci sama jëmm ji xaaji lan ci lu gaaw masaajidi samay jàkk wa xuróoni ak samay maas mu ne yow yàlla mi aji yari ji dama bëgg xaajo yi ma bëgg ci yaw ngir nga defal ma ko faj dina gaaw maanaam def ko ci lu gaaw mu amee noonu xaajo yëpp fajal ma ko mu amee noonu ci lu gaaw waaye samay jàkk ak samay maas maas ku ne xam na ne mooy ñu ko sunu borom dénkoon rek te mu nekkutoon ak ñoom ci réew mi moo xam taalibe yi mu defar ñooñu da leen di tuddee maas ndax ñoo bokk benn xarnu buñ feeñ ak ñim fi jamonoontoog ci ay gaay yu baax yëpp ñu ngi lay ay maasam mu ne nag na nga leen bégalee ci man ci lu gaaw sama maas yëpp waaye ak ay jàkkam nga xam ne kon sëñ sëñ Tuubaa bi mu demagul ci da nga da nga daan dugg ab dëkk doo fa gis jàkk bu gën a déggoo sëñ Tuubaa ñëw ci tukki bi nag fu ne dëkk boo dem yaa nga fekk waxuma la jàkk waaye ay juuma fa taxaw ay juuma fa taxaw xoolal sëñ Tuubaa bi mu sancee Tuubaa boobu jumaa ji nekkul fi jumaa benn amagul benn jumaa mën nga ne ñaata jumaa fi nekk léegi kenn xamul nu mu toll. daaru salaam daaru manaan ak dëkk yi nga xam ne siix fa ne foo dem jumaa yaa nga taxaw loolu li ko may yëpp mooy dem jëm dem ci tukki ba moo tax tey jumaa joo gis mu taxaw rek moo xam ñu fay wasifa moo xam ñu fay julle rek jumaa ju mën a doon rek kooku maanaam jumaa ji ci boppam day bégee sëñ Tuubaa ña cay julli ba tey bu ñu amee xol yu baax wala na ñuy bégee sëñ ndax jumaa ji taxaw rek ci barkeem ci la ko yàlla taxawee ngir taxawal gi mu taxawal lislaam ndax bu lislaam taxawutoon jumaa yi duñ taxaw jamono jëm fi nekkee nag maanaam ay barab yu ñu daan jullee rek nga daan gis waaye jumaa ji taxaw ca kaw day rëb léegi nag ku neex taxaw euh, tabax li nga xam ne moo di jumaa ndax réew mi neex na ñëpp ñuy lekk ceeb di sol say neer fu la neex jaar lu la neex wax te kenn du la wax dara ndax toll nañ ci réew foo xam ne fu nit ñi lu way neex wax ak kooku yow la concerné lu la neex wax toll foo xamee ni nit balaa tekki day dof doflu fu ne Sénégal ku la gën a dof moo lépp xaalis ndax dañuy def ne moom waxi kaso kaso lay wax toll nañ ci réew mi foo xamee ni borom kom xam bi wax déglootuñ ko dañuy jàpp ne day caaxaan day fo kenn du ko seetaan kenn du ko teewlu kenn du ko déglu réew mi la toll. waaye nag kuy caaxaan moom du def wàllu comédien rek kooku ma ëllëgee nit ñi dañ koy taral comme foofu lañ toll. kon jàkk yi dégg nañ ci tukkeem bi nga xam ne moom la tukki woon ñëw ndax heure bu ne di bëri bég nañ ci ñun jamonoon toon ñëpp waaw ñëpp fu ne bég nañ ci tey xoolal rek jumaay Masaalikul gi biñ ko tijjee jullit ñi xool niñ ci biggee rek masaajid yi ci bokk te tukki bee waral rek mu am dafa loo xam ne nit ki wartu kañaan maanaam sëñ bi lépp lu ko yàlla may ci tukki bi la ko jëlee loolu il faut que nit ko. li taxaw nii yëpp li ko suñu borom di may ci ay futuhaat yëpp tukki bee ko ko may il faut que nit ñi xam ko xoolatee bi ñuy tabax jumaay njaarim bi ñuy tabax jumaay Tuubaa jullit ñi ban poson bit lañ am tijaan yeeg xaadir yeeg laayam ñëpp kontaan tey xoolal masaaliku tey ñu bari tey aljuma daawuñ ko julli xoolal tey aljuma yomal jumaat yi day fees dell bokk yi lu mat a bàyyi xel kon sëriñ bi jàkk yi dañ koy bëggee ndax niñ jàppi woon nit ñi daan leen fitnaal noonu leen yeewoon jàkk yi jàkk yi moom bi ñu leen yeewoon sax moo gën a bon ndax kenn daawuta nangu taxawal jàkk nit ñi cay julli mom dama leen jëlali waaye kenn daawu nanguta taxawal jàkk te léegi nag fu waay neex buntu kër goo dem yaa ngi fekk jàkk war la fekk fu juma kon njaaraama sëñ Tuubaa wares na ko sant mu ne bi yow sama borom xajil na nga gaawal xadaa ahaaji faj samay haajo wa basiran yàlla na nga bégale bi ci sama jëmm ji haajalan ci lu gaaw masaa yi samay samay maas waaw masaajid yi fi ne mën nga ko firee jàkk yi sëñ Tuubaa di am jumaa yi rek la ci jublu ndax dafa waxoon ne wajaan bu yooti kullaha masaajida yaa naa fi ma laay ko saajida fépp foo xam ne dañ fay askan sama kër la rek dégg nga ak kër ga kër ga nu mu mën a doon rek moo xam sama doom la moo xam sama taalibe la ku mu mën a doon rek wala ku ñuy askanal ci man na fa jàkk nekk kon këram yëpp day am jàkk këram yëpp day am jàkk ndax da ko ñaanoon yàlla kon te loolu yëpp mbégte lay doon nag mbégteem jullit ñëpp lay doon waaye rawatina mbégteem murit ñi loolu yëpp mooy xanaa jëleen bii masaajid yi wa xuróon yi kenn mosu dégg mu ne rabbi qul lii wa jud bi ahsani suxlin liya wajal haasal kitaaba xarit yi waaye bala nga xam ne sëñ bi mi ngi ànd ak alquran ci waxtu ne du tudd ay bayit te tudd alquran lu mu mën a tudd rek fu ne xasida am daax yeeg xasida salaatu ala nabi astaxfirullah yeeg yëpp sëñ bi mënu cee ñàkk a tudd alquran donte sax ba muy taarif xasida ga taaliful ko di ci waxtaanee alquran waaye faw mu junj ko ci wala faw mu tudd ko ba ñëpp xam ne moom lay wax. ni nga xamee ne saa bu jullee ci yonente bi dana indi aw turam ci baatu sayidina muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal mali lu ñu ràññee ci bindam ngir fonk alquran mu ne xut na nga womatal lii ñeel ma rabbi yow sama borom yi ajjeeri ji wajut te yàlla na nga tabe bi ahsani soxlin gën kaa rafetu laaj lii ñeel ma maanaam li ma lay communiqué li may damaane ci yow dama bëgg la ca gën a rafet na ma ko bëggee na mu gën a rafetee nga joxe ma ko doone waaye wàcc yàlla na nga def xaasal kitaab bii téere bi alquran xarini mu doon sama andoor xam nga sëñ bi bëggul ay andoor nangama nangam mu alquran rek la def muy andoor te alquran rek benn andoor la wóolu dégg nga nga xam ne du ko jëy mukk dégg nga du ko jëw mukk mooy alquran moo tax mu ne nag ma womatal lépp lu may bëgg yow sama borom yi ajeer ji waaye lépp lu ma lay demandé la ca gën a rafet nag ma ko joxe lépp lu ma lay dagaan la ca gën a rafet boo ma koy jox nag ma ko joxee noonu waaye alquran dama bëgg fu ma gestoo a gis ko mu doon sama andoor andoor bi gënal sëñ Tuubaa mooy alquran mooy andooram fu mu mën a jëm wañaal haasal kitaaba xarini mu ne suñu borom wasaat na nga seede lii ñeel ma bi nafsi ma sama sànni la nga xam ne biixtu jaay naa la ko xataan seedeel ma ko ci lu dog ci lu amul benn sikk sàkk ak werante waaye nag dama bëgg waccaal yàlla nga defal lii ñeel ma xafwal musafahin xencu kañu nangu am tinoom su ko defee nag diini mu doon sama diina mu ne yow suñu borom damaa bëgg nga seedeel ma ne lépp lu ma la jaayoon ci marchandise dootuma ca dem seedeel ma ne lépp lu ma xaraamaloon sama bopp dootuma ko lekk wala duma ma xool wala dootuma ko def wala dootuma ko wax seedeel ne ma ca dox jëm kon yàlla la ko seedeeloo de ko benn nit ndax yàlla mi ngi janoog moom moo tax ma seedeel ma lépp lu ma jaayante woon ak yow ne sànni ko ci ay marchandise ne du ma ko def du ma ko xool du ma ko lekk damaa bëgg nga seedeel ma ko ne sànni naa ko ci lu amul benn werante te dootuma ko jublu waaye damaa bëgg bu lul jàllee nga def sama diina muy xenc yonent bi sallallahu alayhi wasallam diina dëgg-dëgg mooy koo xam ne day roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko xenc ci waxtu wu ne ci ay waxam ak ci ay jëfam ak ci ay xaalaatam yépp mu di ci xenc yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy diina waaye nag jullit laa te yaa ngi xenc tubaab ya loolu mooy li bëri jullit laa maa nga ca nasaraan yi heure bu ne nekk ak ñoom xaritoo ñoom mere mboolem ñi nga xam ne mooy nit ñi ñun ñi bëggoo am xaritu nit ku ñuul xaritu rek la ñor ci ñu bon ñi rek ci ngay toog ñoom ngay fréquenté wu yàlla nañu ci yàlla musal yaa wax ne jullit nga yawmal qiyaam sunu borom nee na qaala qaa'ilun minhum inni kaana li qariinun yaqulu a innaka la min al musriqiin a izaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa a izaa man innaa la madiinuun qaala hal antum muttali'uun fatalaha fara'ahu fi sawaa'il jahiim sunu borom nee na kuy fréquenté ab xarit boo xamee ne donte ab jullit nga askanale sa bopp sax waaye ngay fréquenté koo xamee ne ku bon la nee bu yawmal qiyaam bu tàbbee safara nga tàbbee safara dégg nga inal qarina bil maqaarin yaxtadi moo tax ñuy wax ne képp koo xam ne yaa ngi fréquenté nit yonent bee ko wax sallallahu alayhi wasallam booy laaj diw kooku mën na ci sëkk témoignage waaw diw kan moo xam mbiram demal ci ay xaritam ndax mën na laa wax ci moom lu bari yàgg nañ xam na ay biiram bu xamul lépp mi itam bëri na lu mu xam ci moom waaye boo ñëwoon ci man nga bëgg maa laaj koo xamee ne xaw ma ci moom dara du sotti da ngay dem ci koo xam ne moom lay toog ak moom lay fréquenté wu kon fi kullu xarinin bil maqaarin yaxtadi ta man tasaba minu fa wu minum kuy niru niru lu aw nit yonent bi ci ñoom la kon mu ngi noonu mu ne na def sama diine muy xëcc yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye salli rabbi dahban alayhi wa sallim bil mala man bihim bada tal diini salli yàlla nga julli faw rabbi yow sama borom dahban ci luy sax ba faw ali ci kaw yonent bi wa sallim te nga sëlmal ci moom ba tey ci sax ba faw bil mala ànd koog mbooloom ma mbooloom mooy waa këram ak saxaabaam ya man mooy ñi nga xamee ba daa na ne bihim ca ñoom ci seen daraja tal diini sama nooy maanaam bu ma demee ba noy mokk rub sax ci diina mën a am ak ñëpp jàmm kooku melokaana la jukkala ju ma roy ca saxaaba yi ndax ruxam maaw baynahum lañu yàlla wax képp koo xamee ne nooy na rek dugg ci lislam sax ci dëgg la waxoon ne yonent bi naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslim waaye basirun li ma li laaj yàq yushenu jullit dafa war nooy wartu dëgër wartu ba mel ni ndig wartu dëgër ba mel ni aw doj dégg nga loolu yëpp dañ ciy ragal ak jullit kon jullit dafa war a nooy mu ne nag yow suñu borom yàlla na nga julli ak sëlmal julli sax ba faw ci yonent bi sallallahu alayhi julli li itam ca mboolam ma muy waa këram ak saabaam mooy ñi nga xam ne bu ma demee ba nooy mën a nekk ci yéeféer ñi waaw boo nooyee dëgg-dëgg même ñu sax da ngay mën a nekk ak ñoom waaye boo dëgëree doo mën a nekk jullit ñi doo mën a nekk ak ñiru jullit kon doomu aadama nooy moom ci ñëpp lañ ko bëgg mooy mën a nekk ak ñëpp sa xol nooy mu ne kon yàlla na nga faw ci yonent bi julli ci mbooloom ñi nga xam ne maanaam mooy saxaaba yi ci seen daraja de nooy gi ma nooy ci seen daraja ci la feeñee kon jukko la joo xam ne jukkoo saxaaba yi la xoon ci seen digg ak yonent bi ci seen diggante ak ñi bokk ak lislaam ndax wa yusuroon ala anfusihim nga xam ne kenn ku nekk bu amee dara sax moromam la ko gën a yéene kon ab julit noonu lay mel Sëñ Tuubaa nee na bu ma melee noonu kon loolu ci barkeb saxaaba ya ndax kon jukku jum roye ci ñoom la ak melokaan wu mu doonee ci ñoom rek la. rab yow sama borom jut na nga tabe lii ñam dunyaa fii jut na wuxura ak alaxira bi kaw ni sama nekk xaabidan di ab jaam buy jaamu yàlla xaadiman di aj liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi xëyri sa diini ngën ci li nga xam ne moo di ak liggéey mu ne yow suñu borom dama bëgg nga may ma àddina ak alaxira ma doon xaabit ak xaadim mooy koo xam ne sañutu jaar weneen yoon fu dul jaamu yàlla sañutu liggéey beneen liggéey fu dul liggéeyal yonente sallallahu waaye liggéey bu gën la koy defal buñ ne sa mooy xidmatu moo daan nañ wax baata baat bi dañ ko fi rek buy euh, lu mel ni ñu ne xidmatul kaaba ñii kat dañ leen teg ca kaaba ga ngir ñi liggéeyal kaaba ga kooku mooy baatab ñi teg ca kaaba ñiy liggéeyal kaaba wala ñi teg jimaa yi Touba dégg nga nga xam ne ñoom wàllu xurum beeg loolu rek lañuy ñuy sàmm mooy seen mooy seen liggéey dégg nga lu mel ni waa Muxaddamatul Xidma gis nga li ñuy liggéey ci jumaa ji yépp lañ fay def loolu moo tudd sëddiin nga xam ne ñoom loolu lañuy ñuy def sëriñ bi itam moom méccam moo doon doon xaabit waaye doon xaadim sañatu dëng di jaamu keneen ku dul yàlla sañatu liggéeyal di liggéeyal keneen ku dul yonent bi salaasam waaye jaamu ga gën lay jox yalla liggéey bi gën lay jox yonent bi salaasam moo tax mu ne rab yow sama borom nga tabe lii ñeel ma dunyaa fii jut na uxra ak alaxira bi kaw ni sama nekk xaabidan di aji jaamu yàlla te sax ca dàkk xaadiman di aji liggéeyal yonent bi sax ca bi xëyri sa diini ngën ci li nga xam ne moo di ab liggéey mu ne lakka daaru salaami liyakun rabbi fihima saodoni mu ne ko yow sunu borom lakka ñeel na la yow dong dong yaa ko moom daaru salaam kër jàmm ga rabbi yow sama borom wa tuuba ak këru texe ga di waneen daal dëkk bi mu njëkk a sanc mooy daaru salaam dëkk ba ca topp mooy tuuba mu tax toujours foo ko fekk muy tudd ñaari ñaar yi daaru salaam day njëkk indi tek ci tuuba waaye daaru salaam saa bu ko tuddee day wane ne dafa doon diyanteeg suñu borom ci alquran ndax foofu la def yenn xalwaatam yu bari bari ci Daaru Salaam ci jàkka ci jàkka jooju foofu la daan duggee xalwa yu bari moo tax fu muy tuddee ci xasida yi rek bu tuddee Touba dana ci boori Daaru Salaam wala mu njëkk sax njëkkee Daaru Salaam dog cee teg Touba. léegi nag day wane dëkk yëpp da koy delloo ci yàlla ndax moom lépp lu am rek da ko jox yàlla loolu waxoon na ko ca matul fawsayni sama dëkkuwaay ak samay ñoñ samay doom ak sama lépp lu ma am samay taalib sama lépp ndénkaan la ci yàlla. nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wadiatun abad kon da dénk yàlla jébal ko lépp bàyyee ko yàlla loolu mooy bàyyee sa lépp yàlla. kon nit ki lépp loo taxawal bàyyee ko yàlla boo bëggee yàlla téyel la ko sàmmal la ko te nga koy bàyyee yàlla moo tax mu ne ko laka ñenn la rabbi yow sama borom daaru salaam tuuba daaru salaam muy kër ak jàmm Sëñ Tuubaa bëgg jàmm dëkk bu ñu njëkk a sanc daaru salaam la ko tuddee kër ak jàmm te noonu ko ba génne ko yóbbu ko nag ca tukki ba génn ko ci ñaari dëkkam yi mu gën a bëgg muy Daaru Salaam ak Touba. te da ko bañ ba jàmm sax de moo taxoon mu sanc ko ñoom ñu fitnaal ko laa fa kubar yàlla yaa moom Daaru Salaam wa Touba ak Touba comme yaa leen moom kun na nga nekk lii ñeel ma rabbi yow borom saa waxoo doone mbir mu may borom dëkk fii ma ci biit ñaari dëkk yooyu te mooy Daaru Salaam ak Touba. nga xam ne bu dee jamono ji léegi mooy Touba rek <laughs> Touba mo moo ëmb lépp ndax Touba moom lu muy rek mooy ab garab la kon buñ ne Touba xel yépp dem Touba boo ne Daaru Salaam nag dana am Daaru Salaam gu sa xel di dem waaye boo ne Touba man dañoo xam ne benn dëkk rek la donte Daaru Salaam mi ngi ci biir Touba xam nga garabu Touba itam noonu la mel ca yowmal xiyam aljana joo mën a jël rek garabu Touba ay bànqaasam lës na lës na law na ba yegg ci aljana yooyu kon Touba gi itam noonu la timee lépp rek moo tax mu ne nag ma nekkal ci ñaari dëkk yooyu maanaam ma doon koo xam ne samay dëkk daal mooy ñaari dëkk yooyu mu ne nag ma fa nekkal ci saayir nekkal ma ci si baatin kon yàlla may na ko daaru salaam gi ak tubaa gi ci saayir may na ko itam daaru salaam gee mu leen tuddee mu seen turu ndoor ya ca aljana ci baatin ba tey may na ko wajal ilahi maskani Touba abad bis las miyaa bi jaay xayri man abad kon loolu la ko suñu borom may al odooni buñ na xaddana bil makaani xaddana xaddanan wu xodoonan mooy aqaama bihi mooy ko xam ne dëkk boo xam ne dang nga koo sanc ba noppi allahu akbar te xoolal fu ni lii ba mu koy wax kat daw yaram génn nañ ko fa te tegaatu fa tànkam ba keroog mu yujjoo borom lim gën a bëgg ci la ko yàlla nattoo yonent bi looloon di màkkaa ngi ni yonent bi moom la gënoon bëgg yàlla nattoo génn ko mu dem Madina gis nga ko kon sëñ bi itam dëkk bu mu gën a bëgg ci la ko yàlla nattu dégg nga bu mënoon nekk fa waxtu wu ne yàlla natt ko juróom-ñaari at ak teg mantu gi sax dëkk bi di ko séen waxuma laa nag muy dem ci buntu dëkk ba moo tax buñ ne al udduuni buñ ne jën mooy iqaamatin li makaanil xuldi waaye buñ ko waxee ci wàllu dëkk buñ ne xaddanal balada mooy tawatanu diw kat sañci dëkk ba dëkk ba dëkk fa ba nekk waaye nag day fekk nga sax fa gis nga lii day ñaan yàlla rek di ko mbébét di ko mbébét ngir fa waaye ba noppi di yem ca dellu fa waaye sax fa nekk fa di fa dundal jàngal Qur'an di fa dundal xam-xam ci waxtu ne yàlla natt ko nag bi ko sancee ba am fa juróom-ñaari at ngir di xaar nattu mais suñ tubaab nga dégg ci lislaam ñu ne sanc na ab dëkk di xaar ab natt koo déggee ñu ne sanc na ab dëkk rek dañ koo natt ba nëppi yàlla natt ko ba natt wa jeexee mu doog a sanc ab dëkk sëñ bi nag moom dafa sanc ab dëkk ba nëppi di xaar si natt wi te nag bu toogoon Touba natt du ko fekk lor du ko fekk waaye koo dégg ñu ne sëñ Touba wuute na ak ñëpp sëñ Touba bu ko neexoon di génn Touba lu tax mu dem sanc Mbacke lan moo tax Mbacke Baare lu tax mu sanc ko yonent bi da koo xamaloon na ko Touba ji sa borom aar na ko bi nga taalifee Matlabul Fawzayni rek booba ko aar kon nag boo fi nekkee natt moom du lu fekk kon bu tàppitoon danaan xaaral ah ma daw natt bi nag toog Touba konoon kenn du ko fekk di ko lor waaye nag ndekk kon bëgg a dajeeg wi yi moom la bëgg ba nëpp yenu ko moo tax mu dem sancaat beneen dëkk nekk fa ngir nattoo mën ko faa fekk kenn mosu dégg loolu bokk yi wallahi lasim ci lislaam sëñ Touba dong nga koy déggee kon yàlla yaa moom Darou Salaam damaa bëgg nag ca biir dëkk ba ci Daaru Salaam ak Touba nga nekkal ma fa ma doon koo xam ne dama fay dëkk te itam lii mu ñaan yàlla defal na ko ndax même sax ba léegi mi ngi Touba Sëñ Touba fu mu mën a nekk mi ngi Touba donte jëmm ji sax mi ngi gabak mu ngi fi ñu ko mën a yóbbu rek waaye mi ngi Touba ndax xelam heure bu ne mi ngi dellu si Touba léeg-léeg da ngay gis xasir yoo xam ne day nekk ci beneen anam di bind beneen domaine waaye xelam dellu Touba ak Daaru Salaam mu far bindaale ko walaay laa sin loolu yëpp ne bëgg gi bëgg Touba lépp rek ak bëgg bëgg Daaru Salaam kon lakk daaru salaami rabbi wa tuuba li yakun rabbi fiihima saodoni waaye daaru salaam saa bu ko tuddee day wane ne dafa doon diyanteeg suñu borom ci alquran ndax foofu lan def yenn xalwaatam yu bari bari ci daaru salaam ci jàkka ci jàkka jooju foofu la daan duggee xalwa yu bari moo tax fu muy ci xasida yi rek bu tuddee Touba dana ci boori Darou Salaam wala mu njëkk sax njëkkee Darou Salaam dog cee teg Touba. léegi nag day wane dëkk yëpp da koy delloo ci yàlla ndax moom lépp lu am rek da jox yàlla loolu waxoon na ko ca matul faw sëy ni sama dëkkuwaay ak samay ñoñ samay doom ak sama lépp lu ma am samay taalibe sama lépp ndénkaan la ci yàlla nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani laka wadiatun abad kon da koo dénk yàlla jébal ko lépp bàyyee ko yàlla loolu mooy bàyyee sa lépp yàlla kon nit ki lépp loo taxawal bàyyee ko yàlla boo bëggee yàlla téyel la ko sàmmal la ko te nga koy bàyyee yàlla moo tax mu ne ko lakka ñeen la rabbi yow sama borom daaru salaam tuuba daaru salaam muy kër jàmm Sëñ bëgg jàmm dëkk bu ñu njëkk sanc Daaru Salaam la ko tuddee kër ak jàmm te noonu fitnaal ko ba génne ko yóbbu ko nag ca tukki ba génne ko ci ñaari dëkkam yi mu gën a bëgg muy Daaru Salaam ak tuba te da ko bañ ba jàmm sax de moo taxoon mu sanc ko ñoom ñu fitnaal ko laa fa kubar yàlla yaa moom Daaru Salaam wa Touba ak Touba comme yaa leen moom kun na nga nekk lii ma rabbi borom saa xoo doone mbir mu may borom dëkk fii ci biit ñaari dëkk yooyu te mooy Daaru Salaam ak Touba nga xam ne bu dee jamono ji léegi mooy Touba rek Touba moom moo ëmb lépp ndax Touba moom mooy garab la kon ni nga xam ne buñ ne Touba xel yépp dem Touba boo ne Daaru Salaam nag dana am Daaru Salaam gu sa xel di dem waaye boo ne Touba dañoo xam ne benn dëkk rek la donte Daaru Salaam mi ngi ci biir Touba xam nga garabu Touba itam noon la mel ca yowmal xiyam aljana joo mën a jël rek garab Touba ay bànqaasam lës na lës na law na ba yegg ci aljana yooye kon Touba gi itam moo tax ko mu ne nag ma nekkal ci ñaari dëkk yooyu maanaam ma doon koo xam ne samay dëkk daal mooy ñaari dëkk yooyee képp képp mu ne ma fa nekkal ci saayir nekkal ma ci si baatin kon yàlla may na ko daaru salaam gi ak tuubaa gi ci saayir may na ko itam daaru salaam gee mu leen tuddee muy seen turu ndoor ya ca aljana ci baatin ba tey may na ko wajal ilahi maskani tuuba abat mis lasmiya bi jaay xayri man habat kon loolu la ko suñu borom may al odooni buñ na xaddana bil makaani xaddana mooy aqaama bihi mooy ko xam ne dëkk boo xam ne da ko koo sànci ba noppi sax fa laa ko war te ni lii ba koy wax kat ak daw yaram génn nañ ko fa te tegaatu fa tànkam ba keroog mu yujjoo borom lim gën a bëgg ci la ko yàlla nattoo yonent bi looloon di màkkaa ngi ni yonent moom la gënoon a bëgg yàlla nattoo génn ko mu dem Madina gis nga kon sëñ bi dëkk bu mu gën a bëgg ci la ko yàlla nattu dégg nga bu mënoon nekk fa waxtu wu ne yàlla natt ko juróom-ñaari at ak lu teg mantu gi sax dëkk bi di ko séen waxuma laa nag muy dem ci buntu dëkk ba moo tax buñ ne al uduni buñ ne jën mooy iqaamatin li makaanil xuldi waaye buñ ko waxee ci wàllu dëkk buñ na xaddanal balada mooy tawatanuhu diwkat sañci dëkk ba dëkk ba dëkk fa ba nekk waaye nag day fekk nga sax fa gis nga yëpp day ñaan yàlla rek di ko mbébét di ko mbébét ngir dellu fa waaye ba noppi di yem ca dellu fa waaye sax fa nekk fa di fa dundal jàngal Qur'an di fa dundal xam-xam ci to ne yàlla natt ko nag bi mu ko sancee ba am fa juróom-ñaari at ngeen di xaar natt mais nim ne sanc na ab di xaar ab natt koo dégg ñu ne sanc na ab dëkk rek dañ koo natt ba noppi yàlla natt ko ba natt wa jeexee mu doog a sanc ab bi nag moom dafa sanc ab dëkk ba noppi di xaar si natt wi te nag bu toogoon Tuubaa natt du ko fekk lor du ko fekk waaye koo dégg ñu ne sëñ Tuubaa wuute na ak ñëpp sëñ Tuubaa bu ko neexoon di génn Tuubaa lu tax mu dem sanc Mbàkke lan moo tax Mbàkke Baari lu tax mu sanc ko yonent bi da koo xamaloon na ko Touba ji sa borom aar na ko bi nga taalifee Matlabul Fawzayni rek booba lañ ko aar kon nag boo fi nekkee nat moom du lu fekk kon bu tàppitoon danaan xaaral ah ma daw natt bi nag toog Touba konoon kenn du ko fekk di ko lor waaye nag ndekk kon bëgg a dajeeg natt wi moom la bëgg ba nëpp yenu ko moo tax mu dem sancaat beneen dëkk nekk fa ngir nattoo man ko faa fekk kenn mosu dégg loolu bokk yi wallahi laasim ci lislaam Sëñ Touba dong nga kon yàlla yaa moom Daaru Salaam yaa moom Touba damaa bëgg nag ca biir dëkk ba ci Daaru Salaam ak Touba nga nekkal ma fa ma doon koo xam ne dama fay dëkk. te itam lii mu ñaan yàlla defal na ko ndax même sax ba léegi mi ngi Touba Sëñ Touba fu mu mën a nekk mi ngi Touba jëm jëmm ji sax mi ngi gabak mu ngi fi ñu ko a rek waaye mi ngi Touba ndax xelam heure bu ne mi ngi dellu si Touba léeg-léeg da ngay gis xasir xam ne day nekk ci beneen anam di bind beneen domaine waaye xelam dellu Touba ak Daaru Salaam mu far bindaale ko <laughs> bëgg gi lépp rek ak bëgg gi mu bëgg daaru salaam kon laka daaru salaam yi rabbi wa tuuba liyekun rabbi fiihima saadooni